alhamdulillahi nee leen akasa borom kun fa na moom akasa ma jug sant buur yàlla jullil yonen ki tax ñépp naa askay akasa murit yeewul leen nekk na foññet ca kaw ma jug bég bégal leen ci sëriñ akasa damay jaajëfal nag sëriñ bamba tey gërëm saa xam bii di sëriñ akasa jikkoy saa di xak aw meloom ak jëfam la seex Bàmba jagleel sëriñ akasa ne seex Bàmba moo taalifoon téere yi defar jàngkat yi defar sëriñ akasa di fiy boole pastef bu ànd ak ndigal xaw yoonu yàlla mooy sëriñ xàkkasa sarixatul lislaam wa xaqiixatun la booleeg durus moom sëriñ xàkkasa ku gëm yàlla gëm yooneen nag waa këram te gëm sëriñ bàmbaay sëriñ xàkkasa